jërë ngeen jëf euh, journaliste yi fi teew yëpp euh, ngeen ñëw may ñu occasion bi nga xam ni dana tax ñu mën a communiquer ci wàllum grève bi nga xam ni moo am ci dëkk bi yëpp à l'échelle nationale di leen gërëm bu baax di leen sant dafa am kuréel boo xam ni bu dajale maanaam transporteurs yi bu tudd CRUS ba ma ko yëgee dégg ni dañu bëggoon déposé maanaam lu ñuy wax préavis de grève ni maanaam dañu bëgg dem grève dama woo responsable yi nga xam ni ñoo nekk ci cadre bi ñaar ñëwoon nañu te ba ma leen di woo boobu ci mois d'août la woon le mille vingt 2021 ñu ñëwoon teew monsieur Alassane Ndoye la ak monsieur Goro Kouma ñu waxtaan ci wàllum maanaam seen liggéey ak surtout lu ñuy wax contrôle routier maanaam lu ñuy xool oto yi ci tali yi ba ñu déposé seen préavis de grève le 21 août 2021 man mi nga xam ni maanaam ma taxul gouvernement bi te yore dënk ñu dénk ma ministère des infrastructures dama leen woo pour wax jéem a waxtaan ak ñoom sur point yi nga xam ne fukki poñ yu nekk seen négociation am na benn communiqué bu nga xam ne defoon nañ ko le 15 novembre 2021 pour wax maanaam syndicalistes yi maanaam taxawaay état ubbeeku pour mën ñu mën a waxtaan jaloge jéem a trouver solution yoo xam ni moo gën ci askan bi yëpp waaye après boo gisee dem leen invité woo leen yónnee leen benn bataaxal le 9 novembre 2021 waaye dañu gis ni bañ leen woowee nanguwuñu ñëw ñëwuñu barki euh, démb wala démb le premier décembre 2021 samay collaborateur bokk ak ministère bi daje nañu ak représentant cadre boobu ñuy wax euh, jéem a waxtaan tuuti ba ñu jàppoon ni tey daañu daje ba ñuy ñëwee xëy tey su suba ma am ñu ma ci jot pour ñu war fee daje maanaam tisbaar vers treize heures trente tey jële ñu xaar leen ba ñetti waxtu jot maanaam quinze heures ma woo leen ñu ni ma duñu ñëw wala suñuy ñëw na ministre yi bëri teew maanaam ministre yi nga xam ni seen poñ yi peut-être laal na leen ña ni ministre de l'intérieur dafa war a teew ministre des forces armées dafa war a teew ministre de finance ak budget dafa war a teew ministre de l'environnement ak développement durable aussi war naa teew ñu boole ci aussi le ministre des collectivité territoriales et le ministre du travail di fàttali ni tey jii man ba ma ñëwee toog xëy na ministre aman na teewuñu woon waaye ay responsable de haut niveau yi nekk ci ministère yëpp ku ci nekk teew na maanaam même le directeur de la sécurité publique teew na colonel gendarmerie bu amee ci wàllum circulation teew na colonel douane teew na directeur eaux et forêt teew na euh, maanaam secrétaire général ministère des collectivités territoriales teew na waaye ba ma leen wooyee wax leen ñoom ñëpp teew nañu ñoom dañ duñu ñëw te ñëwuñu di wax nag gouvernement bi maanaam gis na ni cadre bi nekkuñu ci taxawaay waxtaan te loolu ñu ngi koy maanaam déplorer wone leen pour ñu waxtaan nanguwuñ ba fii may wax ak yéen nanguwuñu ñëw pour waxtaan ci mbir mi nga xam ni moo fi nekk indi jafe-jafe ci dëkk bi démb conseil des ministre président dafa joxe instruction ministre yi nga xam ni ñoom la concerné surtout ministre des forces armées ak ministre de l'intérieur ñu pour ñu gisee bu ñu paree conseil ba ñu paree conseil ñu dem daje ci bureau yi nga xam ni moom la ministre des forces armées yore fële ca plateau ñu waxtaan waxtaan waxtaan bu bari pour mën a trouver ay solution su waxtaan yooyu lu ci génn mooy dañuy maanaam ci corridor yi su ma jëlee exemple corridor boo jógee dakaar dem ba ma Bamako corridor la yooyu moi dafa am ay règles yu mu fixé ñu ni léegi corridor bu nekk ñetti post de contrôle routier moo ci nekk bien que xam nañu Sénégal ah maanaam dëkk yu ko wër dafa bëri jafe-jafe terrorisme baa nga fa ah wóorul waaye dañuy chaque corridor dañ fay def trois postes de contrôle te tey jii boo demee ci corridor Dakar ko boobule. maanaam commencé ñu mettre en application loolu contrôle yëpp wàññeeku na d'ailleurs pour wax joo ñuy wax engagement boobu ñu jël ñu mën ko tënk ci kayit am na benn arrêté ministère boo xam ñu ngi koy defar te dana pare lu mu yàgg-yàgg dana dana dana teel a pare te ministre yi mu concerné yëpp daañu signé arrêté interministériel boobu ministère de l'intérieur dana ko signé ministère des forces armées dana ko signé ministère donc Euh, maanaam des euh, des finances budget ak finance dana ko signé ak euh, ministère des collectivités territoriale dana ko signé suñ ko signé maanaam arrêté interministériel boobu ñëpp lay engagé te arrêté interministériel boobu ñu ngi koy defar te dana pare ci ay fan yu néew wala peut-être ci ay heures yu néew am na beneen poñ boo xam ni waxtaan nañ ci surtout au niveau du ministère moom la gën a concerné mooy lu ñu wax la concurrence déloyale war gaynde yeeg allo Dakar yeeg et cetera et cetera di wax ni loolu ñun ñëpp xam nañ ni transport illégal la ak irrégulier jël nañ ci ay matuwaay pour quand même gën a fexe ba nga xam ni ñoo ñuy def transport irrégulier ak ak illégal soit ñu régulariser walla ñuy fexe avec le contrôle ba bu ñu mu def bu ñu mën a def transport bu beneen poñ bi parce que fukki poñ la waaye dafa am ñetti poñ yoo xam ni ci am solo la ñetti poñ yooyu la wax ñetteel bi lu ñuy wax maanaam contrôle à la charge de l'essieu mooy chargement camion yi rek lu ñuy chargé dafa am noo xam ne nu ñu koy chargé day weesu capacité maanaam camion yi non seulement loolu danay jur accident waaye day yàq tali charge boobu nag dafa am ay directives yi nga xam ne UEMOA moo ñu ko sas engagement bu ñu jëloon Sénégal jëloon mi ngi ko jëloon depuis le 19 septembre 2019 à Dakar donc lu ñu ciy wut mooy fexe ba respecter maanaam loolu mais bu ñu gisee am na maanaam ay tolérance yu bëri yoo xam ni def nañ ko fii ci Sénégal boo demee yeneen dëkk euh, maanaam li loolu UEMOA joxe comme directive par rapport donc ak les charges à l'essieu Sénégal dong moo ko appliqué wul parce que dafa am loo xam ni daf leen koy daf koy tolérer ak seeteel ko les transporteurs waaye boo demee Mali bii maanaam réglement 14 boobu ñuy wax daf koy appliquer yeneen dëkk yëpp dañ koy appliquer Sénégal dong moo ko dese appliquer par rapport engagement yi xam ni jëloon na ko di wax ni nag gouvernement de Sénégal gis na jafe-jafe ak tolof-tolof yi nga xam ni grève bi moo ko indi ñu waroon liggéey liggéeyuñu ñu waroon dem faju ji fajuwuñu ñu waroon dem am en tout cas commerçant yi liggéey de kenn demul dem dikk bi maanaam dakk na boole ci nag maanaam yàq-yàq bi nga xam ni am na ci ñi nga xam ni dañoo bëggoon liggéey su ma nekkee di continuer de lire xëy na loolu maanaam dana jafe waaye nag vraiment di regretter conséquences yi nga xam ni grève bi daf ko indi ci économie dëkk bi ci koom-koomu dëkk bi Euh, lu loo xam ni lu diis la te di montrer suñu solidarité vraiment di naqarlu mbir mi bokk naqarlu bi ak population Sénégal nga xam ni gref bi yàqal na leen lu bëri te grève bi mënoon na bañ a am en réalité man gëm naa ni mënoon na bañ a am bu fekkee defar dong moo ñu tax a jóg mënoon na bañ a am donc loolu ñu ngi koy naqarlu waaye nag di wax ni kat am na loo xam ni duñ ko seetaan parce que gouvernement dafay condamné maanaam yàq-yàq bu am ci dëkk bi ñu jógoon pour liggéey ñu toj seen ay oto jël saccagé ay kaaru ay bisu Dakar Dem Dikk loolu état bi daf koy condamné fermement te mënu ko seetaan képp koo xam ni dafa bugg liggéey war ngaa mën a jóg dem liggéey ku bëgg a grève droit consacré la bu la neexee nga grève waaye mën ngaa grève bañ a tere ku bugg ba noppi bañ a tere ku bugg liggéey mu liggéey parce que nu nga amee am droit grève noon que nit ki amee droit dem liggéey bu buggee liggéey donc grèveal sa grève booy grève te nga bàyyi ko bugg liggéey dem liggéey loolu nag gouvernement bi dana jël matuwaay bu mat sëkk pour képp koo xam ne bugg na liggéey mu dem liggéey te loolu aussi bépp kuréel bu nekk ci biir état bi service la wala gouverneur wala préfet wala sous-préfet wala maanaam force de l'ordre yi ñu jël matuwaay yépp pour képp koo xam ni bugg na dem dëkk moo xam ne liggéey wala doxi soxlaam mu mën ko def en tout sécurité en tout liberté donc état bi comme nu ma ko waxee léegi dana jël matuwaayam yépp pour que dëkk bi mën a tourner euh, comme nu mu waree te état bi dana jël ay responsabilités pour loolu mën a am donc di leen gërëm bu baax di leen sant Donc on va, on va prendre quelques questions. Parce que vous connaissez toute la situation. Ah, monsieur. D'accord, allez-y pour votre question. Hmm? À part Hassan Diop, il y a quelqu'un d'autre pour une question C'est bon, non C'est comment Immédiat. Immédiat. Donc on a deux questions. C'est bon, on part sur cette base-là. Hassan, allez-y. Aïcha. nga ne lan lan bëriwul. maanaam liggéey ñu ngi bëri liggéeyu. ñu ngi dégg ñu naan dañoo ñàkk ci koppar yi nii la toll ñenn ñi di ko weddi naan tollul nii ñu bëggoon yow nga leeral ñu wax ni ñaata la ñàkk. loolu nag xaw ma ko. <laughs> Euh, ndax tamit jotul euh, ñi nga xamante ne mooy poids yi camion yi ñu sàkkal leen heure bu ñuy ndax gis nañu yi mujjee am yëpp camion poids lourds yi ñoom ñoo ko tamit ñu tere leen yenn ñuy daw nga ñu mën a bañ a indi couche couche waaw loolu moo tax ñuy wax waxu règlement 14 surcharge yi mooy le poids total wala aussi charge à l'essieu parce que camion boo ko chargé noo ko warul chargé dana day risque bi mooy accident risque la premier risque mooy accident waxuma sax yàq tali bi muy yàq tali bi waaye premier risque mooy accident c'est vrai ay xalaat mi ngi daw pour seet est-ce que yenn camions yi wala yenn transport yi du ñu dem du ñu sàkkal waxtu ñu war a dox mais waxtaanee guñ ko réflexion bi ci biir ministère bi la ak service yi mu concerné mais daañu gën a mën waxtaan pour xool camions yi wala yenn transporteurs yi heure yu ñu mën a dox. pour éviter yenn accident yi parce que gis nañu accident yu bëri maanaam une bonne partie soit camions yi la wala si yenn car de transport yi donc loolu daañu ci waxtaan d'ailleurs loolu moo tax d'ailleurs l' nationale sur la sécurité routière temps yi gis ngeen non seulement ñu créer ko waaye euh, jéem a nommé ñi ci war a nekk pour que mën a doxal parce que liggéeyam c' est pour un peu ñu accompagner maanaam lépp loo xam luy aar askan bi ci wàllum transport surtout le transport routier wala impact économie bi j'avoue que évaluer guñ ko mais mën nañ ko évaluer parce que xam nañu am na impact ah bu transport dawul te yàlla bon yàlla dafa def grève bi quand même en tout cas ñu bëri suivre nañ ko donc dafa am impact boo xam ni dafa am solo waaye bo bu jotee les économistes waa ministère des finances daañu wax impact bi ñaata la coûté ci économie nationale. vous avez parlé des, des longs c'est-à-dire Dakar Bamako avec trois, désormais trois internes. Combien de postes de contrôle avez-vous Je veux dire, par exemple, les voitures de Gaï et autres qui quittent le plateau pour aller par exemple au niveau de la banque. Parfois, il y a des de contrôle et parfois, c'est pour Alors, ce qu'il faut retenir, il y a deux types de contrôle. Il y a le contrôle qu'on appelle le contrôle routier, euh, relativement donc aux dispositions du code de la route. Le deuxième type de contrôle, c'est le contrôle de sécurité. Comme vous le savez, nous sommes dans la sous-région et euh, l'insécurité règne au niveau donc de, nos, de certains de nos voisins. Euh, ce type de contrôle n'est pas encore enfin, n'a pas encore été évoquée, puisque cela concerne la sécurité nationale. Sous les corridors, euh, les directives de l'IOMA donc, nous engagent à respecter trois postes de contrôle sur les corridors. Alors, donc, Dakar-Bamako est un corridor. Euh, il y a cinq ou six corridors à l'échelle nationale et l'engagement est de respecter cette disons, directive de l'UEMOA et sa mise en œuvre donc sera réalisée progressivement. Aujourd'hui, au constat, vous allez sur le corridor Dakar-Bamako, le dispositif est largement... D'ailleurs, la mise en œuvre a démarré. Et on peut le constater, donc, sur le terrain, euh, voilà, à l'échelle nationale. Généralement, même à l'échelle nationale, les contrôles ont été allégés. Je donne l'exemple euh, pour mieux illustrer ce que vous dire. à la sortie du port, en empruntant la route de Rufisque, vers Sips, i y avait beaucoup de contrôles. Mais aujourd'hui, ces contrôles voilà, ont été carrément supprimés, puisque le premier contrôle sur le corridor euh, sera effectif à partir de Djamnyadjo. Le deuxième contrôle sera à Kafrine et le troisième contrôle sera à Kidira. Ces contrôles routiers vont regrouper l'ensemble des en tout cas, structures qui interviennent dans le contrôle. La, la, les endroits où il y aura la police, c'est la police qui sera là la douane, les eaux et forêts. Il y a des zones où ce la gendarmerie, la douane et les eaux forêts. Donc c'est comme ça donc, que les choses ont été élaborées pour permettre effectivement aux usagers de pouvoir circuler dans les règles de l'art.

a waaw xam nga démb démb man sama bopp woo naa certains responsables ni leen mën ngeen ñëw ñu toog waxtaan. parce que yéen ay responsable ngeen ñun ay responsable lañu te heure bu ngeen ma wooyee pare naa pour recevoir leen ñu waxtaan bu ngeen bëggee une de du matin bu ngeen bëggee deux heures du matin bu ngeen bëggee quatre heures matin woo naa leen waaye yàlla def na ñëwuñu tey aussi woo naa leen ni leen dañuy ñëw parce que bu ñu demee ba am waxtaan boo xam ni def nañ ko au niveau ministériel ma war a joxe message ba bugguma koon joxee nii dama bëggoon ñu ñëw teew ma wax leen disposition yoo xam ni état bi jël na ko wax naa leen ñëwuñu waaye lu ma mën a wax ci loolu mooy fii ma toog mun naa fee toog du ma fi jóge xaar leen ñu ñëw waxtaan bu fekkee intérêt dëkk bi moo leen tax a jóg ak defar askan bi moo leen tax a jóg wala bañ a xeex askan bi man pare naa pour toog waxtaan ak ñoom man mii damay porter maay seen ministre de tutelle maay seen interlocuteur man may porter la voix di gouvernement waruma ñëw toog ñu waruma exiger ni yeneen ministre dañ ci war a ñëw fekkee loolu warul demee noonu bu fekkee defar dong ma leen tax a jóg wala bu fekkee leneen làquwul ci ginnaaw grève bi dañu war a ñëw toog ñu déglu leen dox parce que état bi def na jël na ci ay jéego yu am solo donc <coughs> lu ma mën a wax. mooy pare nañu fii mën naa fi bañ a jóg tey jii heure bi bu ñu déparé fu ñu nekk ñëw dañu toog waxtaan parce que waxtaan mooy defar doon suñu sago grève bi nuñ ko nuñ ko jë nuñ ko tàmbale nii dafa war a dàq parce que démb la ñu waxoon le premier ak le déggu mu ñu wax le trois déggu moo ñu wax le quatre déggu moo ñu wax dafa war a jeex tey comme am na ay ak état bi def na ay jéego yu am solo pour man grève bi dafa war a dakk donc invité leen. vraiment en toute simplicité vraiment ak talal loxo ci ay ñoo xam ni ñoo bokk même objectif mooy taxawal askan bi defaral askan bi bañ yàq askan bi parce que bu ñu gisee nii économie bi ñaari fan mbir yu bëri taxaw loolu day sooke économie ñi ngi soogaa génn wala ñu ngi waaj a génn ci mbirum mbas mi nga xam ni dafa laal suñu économie ñoom buñ ci boolee leneen loo xam ni da koy gën a du baax du baax ci ñoom waaye du baax ci ñun aussi te du baax ci kenn donc pour éviter loolu yëpp man pare naa ñëw toog ak vraiment tous les directeurs yu nga xam ni ñoom ñoo fi ñëwoon a sànq woolee ñu ñëw toog ñu wax waxtaan comme ça ñu lever seen mot d'ordre nit ñi mën a dem mën a dem liggéey te loolu pare naa ci mën jegewuma fi je les attends et lance un appel damay lancer un appel à leur endroit que l'État pare na man maa porté la parole du gouvernement représenté sama ay collègues ministres pare na toog naa di leen xaar ñu ñëw waxtaan bu fekkee intérêt Sénégal moo leen tax a jóg wala yàq aussi bañ leen tax jóg donc loolu laa amoon lu may wax ci question boobu maa ngi fii di xaar bu ngeen bëggee nag mu ngeen ko diffuser vraiment à l'échelle internationale. voilà, d'accord naa. yaa ngi doon wax naan que dañoo war a def grève sur cet appel au dialogue. léegi si moom laa leen jot nee na carrément duñ arrêté grève fii ministre conseil ministère concerné yëpp taxawul ngir si. maanaam wax na ko léegi. non. Cet appel au dialogue, vous en profitez pour répondre au Debon, lancez l'appel au dialogue en France et on avance. C'est bon, il va faire en français. Oui, vous disiez Lancez l'appel au dialogue. en français les questions qui ont été posées par cette dame. Qu'est-ce que vous leur dites par rapport aux de Est-ce que la fin de la grève oui ce que je pourrais éventuellement dire sur cette question, c'est manifester ma disponibilité à les recevoir, à recevoir le cadre, euh, puisque euh, des avancées notoires ont été notées Euh, par rapport euh, surtout à la question relative au contrôle routier. Je l'ai évoqué tantôt. Euh, le dispositif pour se conformer même aux directives de l'UEMOA, ce dispositif a été mis en œuvre et commence à être appliqué présentement. Donc, et ce point concernait vraiment essentiellement, en tout cas, le point le plus, l'un des points les plus importants, par rapport donc à leur plateforme revendicative. Et aujourd'hui, je suis disposé, disponible à les recevoir. Le ministre de tutelle porte la parole du gouvernement et représente mes autres collègues ministres. Donc je suis l'interlocuteur direct de ces syndicalistes. Je suis leur interlocuteur direct et je suis là, disponible et disposé à échanger avec eux, vraiment parce que ce que nous souhaiterons, c'est que la grève puisse être, donc quoi, le mot d'ordre puisse être levé et mettre fin à cette grève qui quand même aura un impact important sur l'économie nationale. Et je suis persuadé que nos interlocuteurs sont animés, en tout cas de, de bonne foi, ça c'est, je, je, je, le suppose. Donc, euh, et, et la table de négociation est là. Euh, j'ai évoqué tout à l'heure euh, les mesures qui ont été en tout cas prises à l'échelle du gouvernement. et je suis prêt à les rencontrer, à discuter pour qu'ils lèvent le mot d'ordre. Le préavis avait dit une grève le premier et le deux. Donc théoriquement, en respectant le préavis, la grève devrait pouvoir s'en arrêter là. Mais naturellement, on va continuer à échanger, à les rassurer par rapport à la disponibilité de l'État pour trouver des solutions définitives, ce que je viens de faire effectivement euh, donc dans la déclaration que je viens de vous lire. Donc vraiment, je suis là. avec mes équipes et avec même les représentant des ministères qui étaient là tout à l'heure à 15 heures, à les écouter, pour que demain, cette, euh, vraiment d'ordre puisse être levé. Non, je, les attends. Je lance un appel. Et moi, je lance un appel à l'endroit, effectivement, des de ces, de, du, du, cadre unitaire des transports. Donc voilà, à venir discuter avec moi. <laughs> Je vous remercie.